gannaaw ba nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di dellu di ndokkeel ak a fàttali bokki jullit yépp ci weer wi nga xam ne ci lañu nekk te mu mel ne bu ñu ko xaajoon ñaari xaaj benn xaaj ba moom teg na aslëf jàll te kat bu yàggutoo ñu baree koy waajal noonu nag la sunu boroom binde lim bind lépp lu ci nekk boo ko dee séentu rek ba xam bis ba daanaka waxi jeex la ñuy wax kon boog koor gi waxi tàggoo lay bëgg a lay bëgg a wax liñ ci jot a def yàlla na ko suñu boroom nangu li ci kanam it yàlla na nu may man ak tal ba nu mënu koo jooxe te mu nangu ko mu mel ne bu xaaj bu njëkk bi jàllee ba teg ay fan day jaadu ci jullit bi mu natt ay koogam ba xam koog yim jot a duy benn bu ci nekk la ca war a nekk moo ca nekk ndax ba mu ko cay def setoon na ak fa mu ko denc ndax wóor na su ko defee lu mu ca gis moo gën a xam boppam képp koo xam ne bi weer wi tàmbaleeg léegi jotu ca woor jotu ca woor ay bés jutu caa woor ay bés na gaaw um ndax kat na nga ni daaw ñi ngi fi bokkoon nekk aku nit ngeen di dem ak a dikk yàlla dogal na lam dogal ci ñoom ren wóor na ñépp ne loolu alxuraan la ñoom ñépp ña ngay réccu la ñuy réccu mooy lu teewoon daaw ñu def lu bari kon bokkum fi fekkee la ngay dund na nga xam ne nii xaaj bu njëkk bi jàlle ba teg ay fan noonu la suñuy fan yéese lu toll ne li dem ci koor gi ci weeru koor du dellu si waat ay fan sax bari na ca waaye noo yi ci yoto noo yeeku si néew sax du ñëwaat su ko defee ñu bàyyi xel ne yàlla lam waxoon tey la ko gën a wax tey la waalo gën a aay xawma nag lu daloon lu waraloon léebu woowu waaye yàlla daal la mu waxoon tey jii la ko gën a wax am na yetti kullu yu ma jàng léegi yoo xam ne benn bu ci nekk bay tëj buntu ba moom leer na ñépp kulla yawmin huwa fi sha'n mooy bis bu nekk ak la muy dikke ak la cay xew am na ñooñ bis bii ñu toll di nangami fan ci weeru koor mooy seen bis duñ ko génn mukk tafaatu koñ am na ñoo xam ne mooy seen bis ci la ñuy judd mënuñu woon a judd bis yi jiitu ci koor gi lu dul tey rek la ñuy war a judd bis bu nekk ak la cay war a xaw bis bu nekk la cay war a xaw it weesu na foofu da ngay dégg bis bu ñu jàmbat aw tàngoor bis ba ca sës sedd guy noonu muy soppe jamonoom nag day feeñ ci lépp daa moom day boroom ba ca topp mooy lu nekk ci kaw suuf day jeex tàkk bis day ñëw mu jeex loolu yomb naa xam kenn fi ñun kenn ku nekk ci ñun xam na mbooloo mu bari moo xam ne dangay man ne fii la diw dëkkoon mu gental ko nga ne fii lañ ko denc mu sañc fa te yàlla rek xam kañ la fay jóge ak jógeem fa moom yow doo ko fekk bisay ñëw rek ñu boole leen woo yéen ñépp ngeen di pullet pullet yi mel ne bu tawee ba bis bi am ba taw bi am juróomi fan su ko defee nag ba ca topp mooy boobu mooy kullu man alayha faan ba ca topp mooy kullu shay'in haalikun illa wajha ñen yu nekk dégg nañ ñu ne tabax sàngam daa xëy xëy rek daanu te moo ne ba muy soog a noppi yéeme woon na lool cib rafet cib rafetaay akub dëgëraay mboolem lu ca waroon ci ay fàgguteef ba mën faa yàgg defoon nañ ko waaye di dig baa agsi rek mu xëy xëy mab daanu ba kenn xàmmeetu ko ak jalub suuf bu mag rek waaye ba ko tëj nag mooy moo mat a waajal mooy kullu nafsin daa'iqatul mawt am na ci alquran du ëpp wenn yoon am na bu boo xam ne ma nga ca teg summa ilay ilayna turja'un am na boo xam ne innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaama moo ci topp bi ma jëkk a wax mooy fu waaye yàlla yàkkamtiwul dara yàkkamtiwul kenn it waaye ku nekk dana la mas a jàpp bis rek lay xaar ak yow moom la ñuy wax ne sàcc bu dul raw jërul yàq i nelaw sàcc bu dul raw jërul yàq ay nelaw moo tax nit ki su fekkee lu mel ne weeru koor fekk na ko ci kaw suuf muy dund lii mën a tax weeru koor wi ñëw ba jeex te xamut lu mu ca defal yàlla wala ndigal suñu borom lu mu ci jëfe loolu jullit bu nekk war na koo moytu yàlla na ci yàlla musal te kat bokk yi suñu boroom du teg nit lu mënut laa yukallifu llahu nafsan illa wus'aha du laaj kenn it lu mu amul laa yukallifu llahu nafsan illa ma ataaha lu ci nekk xam na nit ki mën na ko léeg-léeg nag nit lajj wàcc yoon moo ne wàcc yoon gi ñuy wàcc yoon ak a wàccaat suñu boroom waxoon na ak ñun bu yàgg ci ne luy am ak a amaat la waaye nañ xam ne foo ko gisee seytaane fa jaar ak àdduna yaa ayuha nnaasu inna wa'da allahi xaqun mooy bi ma njëkk a wax yàlla lu mu digee dana ko def ginnaaw xam ngeen ne lu mu digee dana ko def nag te teg ngeen ci seen bët kulla yawmin huwa fi sha'n saa su nekk bis yi ñi ngi ñëw ak di indi lu bokkut ak la seen moroom ne seen démb meloon démb mu sedd tey mu tàng jër wala démb tàng jër tey sedd guy yi ku ne mën na ko xam am bis yoo xam ne kuy génn da ngay yóbbaale kaala lu ko may wala ay lonet lu ko may doo mën a gis ndax ngelaw lu bari yenn bis yi mu ne tekk bañ naan tey da daa ngelawul loolu koy tamit sa bët neex naa xam waaye ku ne teg na ci bëtamit ne loo gis ci kaw suuf si rek day jeex tàkk li ci gën a cher ci kaw suuf si li ci gën a am solo muy nit fii la dëkkoon dégg nañ ko ba tàyyi fii la këram nekkoon wala ñu xëy xëy ne la mën a mënatu ko ak a masa am kàttan kàttan nga jeex na ak a masa neexi nopp loo sori sori boo ko jëwee mu dégg ko kon ñàkk na ko léegi saa bu ñu masaan di nas pusa moom la ñuy woo ndax gët yu neex léegi da koy indi ba mu sës ci gëtam yi te du tax mu gis ko tuut la cay gis pexe mu nañu defal ko ngir mu mën a gis kon kon nekkatu fa gis ba nekkatu fa ba cëram yi ne ci yaram bi yépp loolu gises na ko ba tàyyi waaye lu ne ci kaw suuf it day mujj yàqu ba mel na du moom misaal yi bari na waaye nag bi ci des moom mat a waajal kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujuurakum yawmal qiyaama faman zuhziha anin naari wa udxila aljannata faqad faaza yal na nu ci yàlla boole. waaye nag falaa taxurrannakum alxayaatu dunya yi nga xam ne adduna daf koy andi mu mel ni ab jay wala mu mel ni ab yàq yàlla nee nañu woon bu yàgg li yàlla digee dana ko def bu leen adduna man manee mukk ba ngeen tegg seen tànk ci fi leen yàlla joxoñ wala yaxurannakum billahi alxaruur seytaane ak adduna na ngeen fexe ba lu jay bi bari bari lu yëngatu bi bari bari féete leen fa yàlla féete rek ndax ku faatu rek yàlla wax na ak moom wala qad jitumuna furada li muy jëkk wax ak moom mooy mooy foofu ah dangaa defoon ne du ma la jàpp wala qad jitumuna furada kama xalaqnaakum awwala marra mbokk yi bi suñu borom di di ñu bind kenn fekkewu ko kenn jàppalewu ko néewul kenn jox ma martu be bu dee lu ñu war a daaj wala jox ma tournevis be bu dee lu ñu war a lu tournevis dis laaj wala dama indil ma lee ñi nga xam ne ñoom la nit di jaare sax ki ci gën a fës muy jigéen léeg-léeg suñu borom jëfandiku ci moom te du ko yëg dana toog lu yàgg du xam ne mi ngi dara kon boog bis ba muy jàkkaan jàkkaarloo waat ak nun naan bi ngay ñëw de yow dong yaa am moo ne nii la demee woon bu jëkk de yëgoo woon nag waaye tey moom yaa ngi ne jar di gis di dégg kama xalaqnaakum awwala marra wa taraktum ma xawalnaakum waraa zuhurikum loo amoon ñàkk nga ko tey wa ma nara maakum shufaaakum allazina zaamtum annahum fikum shurakaa ña nga faraloon féete ak ñoom ba tax su ma masaan digle nga ñàkkal ko solo ne ah li muy digle kenn mënu ko seet la diw di digle mu neex ci yow jubu la nga jaar ca ana ñooñu tey wa ma nara maakum shufaaakum allazina zaamtum annahum fikum shurakaa laqad taqataa baynakum seen diggante dog na kañ ba kañ bis bu ñu leen taxawalee ku ne di jël ci sa moroom sa xaq bayro mu ñu fi doon fàttali keroog ne soxna su de koo jàng wax ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa wax ko ci la mu ca wax dafa am ko laaj fu mu nekk ak lu muy tekki mi ngi ci te téere Sëriñ Tuubaa bu ñuy wax tasawudu sixaar doonte mën naa am ci tasawudu shubbaan li muy tekki mooy yow ëllëg toppante danaa fa gàññ sëñ bi mi ngi wax ci bis pénc ak la cay xew wa yaqaau alqisaasu bayna jamma wa bayna qarna li adlin samma mooy ëllëg toppante day am sax jëlale na nit ñi de ci yaama teewoona wala yaama taxoona waaye jëlale na nit ñi waaye jur gi sax toppante day am seen diggante jam mooy xar mu amuti bay jël xar yi nga xam ne amuñu ay bëjjën wala nag yi seeni bëjjën damm wala waroom bëjjën yi daal yàlla xam dañ ko yeex a saxle wala saxle wuñ ko wala damm la nañ ko ci ab xeex seeni moroom nennu leen di leen daan su ëllëgee sëñ bi bind na ne yàlla day saxal ñii amutoon yi bëjjën ay bëjjën ñu fayu ca seeni moroom ya amuñu bëjjën kon bokk bokk yi nit ñi rawaate ca kon boobu laqad taqataa baynakum seen diggante doggante am na ci boo xam ne bis pencey taxaw nga joxar bi ko ne ko fay ma benn su amee fay la su amut ñu sëfal ko ci say wàkkaar loolu nag bokk yi fi lañ koy xalaate ndigalul suñu boroom lu ay caaxaan tey su xiin saxee ku ne dana wuti fu mu dugg moo ne nekk ci biti tawate wàññiwul dara am na ñu koy def du leen wàññi dara waaye suñu borom moo ci wane kàttanam rek ci ne saa su nekk am na lu mu bind lu ñuy ragal bu tawee ba ca kanam yëngu yooyu muy yëngu am na ñoo xam ne dañuy fab seen doom dara ko ci seen bopp gëmm képp lañ man yaakaar yàlla nag waaye ñëpp ay tiit moo tax ku yàlla may muy dund war nay xool boppam saa su nekk mu ubbi xët bu bees peq sëñ bu mag bi bindoon na ne toppante googu dox diggante nit ñi day jëlal nañ ko waaye day am ba ci jur gi sax mooy wa yaqaawul xisaasu xisaas mooy fayantoo lu lu koy defoon ñu delloo ñu def ko lu ñu toll bay na jàmmaa diggante njëkk njëkk mooy xar ma amuti bëjëm wa bay na xorna ak diggante xar wala bay waroom bëjën yi loolu lu tax yàlla jëfandikoo ko fa li adlin samma maanu gu mat sëkk ba loo mënal sa sa moroom nañu lu baax rek waaye bu dee safaan yàlla daf koy toppante ba ci diggante xar ak morom ja wala bëy ak morom ja wala nag ak morom ja sax moo tax mu ne bu ñu nekkee fii ci àdduna demaguñ weeru koor teru ba weesu xaaj nañ xam ne kenn du wut ngërëmul lu neex kenn ba mooy yàlla minum si mag bi la xultu nee na woon ca masalikul gi naan wa xaytu ma dakartu lafda qultu fa min maani qawlihim naqaltu saa boo gisee ma ne qultu maa ne maa ne moom fu ma ko waxe fu wér laa ko teg waaye dama jël nag sama yan yanu ko ne maa la ko wax defal lu la ca fekk woo ma dafa firi xadisu bi yonent bi mu wax ne la taata li maxluqin fi maasiyati alxaaliq bu kenn jéem a seet lu neex nit nga di ca ànd ak moom ba far mooy yàlla moom nag bi mu koy leeral daf ne qultu wa man talaba ridwana alwara bi suxti rabbihi fa xumrun zukara képp koo xam ne maane képp koo xam ne mi ngi wut ngërëmul bindeef mu mën a doon ba tax mu ne fa tegg ngërëmul ndigalul suñu borom ba nar càtt seeg mbugalam dof bu gëmmentoo nga noonee dof daa doy sëkk tàggoog sago waxaale wuñ dof bu gëmmentu far dof moom bu nelawul sax bu gëmmentu wut nelawul sax disu ko limaale ba ci jaamu yàlla disu ko ci limaale waxaale wuñ nag dof boo xam daa gëmmentu far qultu man talaba ridwan alwara bi suxti rabbihi fa xumrun dukara daan ne su àdduna bépp maase woon wala ka ngay topp ci moom di wut ngërëmam di ko wut guddeeg bëccëg ba teelaa jaamu yàlla amul la njariñ amul lu mu lay fay ëllëg fa laysa yugnika rida alxalqi ida lam turdi mawlaak faxit faxit an zalida ngërëmul nit ñi amulu la benn njariñ ngërëmul yàlla moo mat a wut nit nag dana yóbbu nit aljanna nu ngi ko ci yóbboo da koy tegtal yoon ba noppi jaar ca da koy tegtal ku la tegtal yoon wu jëm dëkk sangam jox la wet ga këram nekke soo toppee ay tegtalam ba àgg kër ga moo la fa yóbbu waaye su la joxee ay tegtal nga ne yoon woowu dafa gudd naa seeti naa seet feneen te taxul nga xam yoonu yoonu dëkk ba du ngeen mas a gisante fenn moo tax mu ne ngërëmul bindeef amul njariñ yàlla na tasee ngërëmul suñu borom rek kon bàyyil wut ngërëmul bindeef te wuti ngërëmul suñu borom mi bind bindeef yépp waaye wala yaduruka ida ardayta mawlaaka suxtu man lahu asayta tey bu la nit ñépp maase woon wan gannaaw kenn ku ci nekk dagg la wàcc ndax li muy digle nanguwoo ko def ndax loola dëppawut ak ngërëmul suñu borom nee na du la wàññi dara lépp loolu nit mën nar a meree wala mu war la ko meree ndax li mu lay digal ngay bañ te loola lu mu lay digal wërtu na ngërëmul suñu borom yow ngërëmul suñu borom ngay wër neel caw ci ngërëmul suñu borom xamal ne kii mënal la dara moom la alquran waxoon bu yàgg ne wa in yamsaska allahu bi durin fala kashifa lahu ilaahu wa in yuridka bi xayrin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yashaau min ibadihi wa huwa alghafuru rahim kon boog bu ñu xalaatee ñi fi nekkoon ak ñun daaw ci weeru koor bi ci fan yii kenn ku nekk waajoon ne bu korigaa nii la cay def naa la cay def yàlla dogal balaa korigaa laata dem ci fan yii mu nelaw ñun ñi ngi feelee ku si néew nañ gaaw ba réccu la dalal ñooña bañ ñoo dal ndax kat alquran nee na ku dem dana réccu ku dem dana réccu lu lu lu tax yàlla mayu ko mu dellu si waat fi def fi ab diir bu gàtt moom la suñ bi tënk ci ënd bayit wa argabu l ashyaai lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw suwayatan faqat li yaamalu saalihatan tanfauhum in qafalu mooy li alquran wax ne yàlla tey nga ñoo baal ñu delluwaat adduna mu ne loolu mënta am moom kay ña fa nekkay ñoo leen mën di ñaan yërmande rek waaye yéen moom du seen jëf toggatuñu leen jëf yéen fii ngeen di xaar ba bañ leen di àtte kenn ku nekk say dossier yi ngi toog di xaar suñu dossier nag yàlla na ca weeri koor ne fa ne fét féttéral koor gu suñu borom nangu buñ fàttalikoo ñooñu rek danañ xam ne lépp day jaax te bànneexub àdduna lu mu lu mu yaatu yaatu jër gàcceeg àllaaxira te sëñ bu mag bi bind na ci ab leetar bu mu doon bind mel na mbokk mi ngi ci majmaatu bi sëñ Abdullah dajale nee na ko léeg-léeg nit dana fa danañ fa joxar bi nit di ko tagg di ko tagg bañ naan waaw xanaa yàlla dañoo fàtte ñun boobu tey mu nekk nit di ko tagg rek tagg mooy di ko kañ kañ yàlla du tagg kenn day kañ waaw góor maanaam yow li nga am jomb la da nga ko kañ ña taseeg ngir mën a suñu borom waaye nee na nag léeg-léeg ñu di fa tànc nit tànc di wax ay ay yëfam bam na yàlla te nga ma yërëm yóbbu ma sawara te noppi te wax kii wax ma noppi loolu nag ku ne xam na fam jaaroon ba loolu dal ko yàlla na nu yàlla musal ñi nga xam ne it ñi ngi góorgóorlu di woor ñi ngi ci ndigali suñu boroom waaye bu ñu ko yàq buñ nen di naan nen di naan mooy woor ba noppi di nelaw bëccëg yi di xoole guddi yi loolu taxul ñu naan koor koor moom bëccëg bi moo ci ëpp doole ndax mooy daara yi di jànge li muy jàng taqwa taqwa moom kenn mënut di nekk di nelaw di ko jàng taqwa mooy dugg ci sam néeg ubbi sa gaal yooyu ñu def ndox mu sedd waxande ya yu sedd ya nekk ca te di ay ñam nekk ca te di lu ñuy naan yow képp nga nekk fa nga ne damaa woor wan ko gannaaw ku ko jàng ci koor gi ba mokkal ko leneen la romb it boo waree war ngaa mën a xam ne yàlla ngi lay gis moo tax daara la jooj njàng mi ci nekk dafa bari ñi nga xam ne daal seeni xol daana dund bu koor gi masaan ñëw ba agsi fii mu agsi ay rongoñ lañ koy jàpp lañ koy gungee rongoñ dañuy fanaanee jooy di yondoo jooy moom la alquran di wax ne ayaxsabuuna annama numidduhum bihi min maalin wa banina nusaaricu lahum fi lxayraati bal la yashcuruun yàlla jox la lépp jox la lépp ba noppi nga ne yàcc yàccaaral defe na bu ëllëgee lu ne mën nga koo am nee na ñoo yëguñu li xaw nee na gaa yi dëgg-dëgg moo nga tàmbalee inna lazina hum bi ayaati rabbihim yuminuun wallazina hum bi rabbihim la yushrikuun wallazina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raajicuun ulaika yusaaricuuna fi lxayraati wa hum laha saabiquun nee na ñi nga xam ne ñoom yàlla day na jox lu ne gañ jox leen ak njaboot te te te te nañu bari jox leen alal ñu bari di ko wut mënuñ koo am yàlla nee na maa dañoo yaakaar ne dama cay boole defar leen seen mbir te duñ def dara defar mbir nag boo ko déggee diggante yàlla ak ñun mooy payug ëllëg nee na ku ci topp sa njaboot ak sa alal di ko saax-saaxee fii defe ne lépp day baax ëllëg it mën ngaa yëgu li xew ëllëg moom la fay xew mooy koo xam ne xol bu set wecc la yor te tegoon tànkam fi yàlla teglu rawate nag arkaan yi ponk yi lislaam nee na ñooña dem nañ ba àgg ci ñooy gaaye dëgg-dëgg su weeru koor masaan àgg fii ñu xam ne mi ngi bëgg a jeex leñu tàmbali woor di denc la mag ñi daan wax woor di wàcc mooy bis boo woor doo ko waral rek ñoom jooy lañ koy gunge soxna Aïcha sax radiyallahu anha laaj na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu lu ñuy jooy ma defoon ne jooy moom mooy kuñ teg loxo tam doon sàcc wala ñu teg ko loxo tam doon def leneen lu neexul yàlla ñii def lu neex yàlla ba noppi du jooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah kay ñii jooy du sàcc si du ñuy def lu neexul yàlla ñu teg leen loxo waaye mooy ñi nga xam ne dañoo kër kër yi ba weeru koor wi xaaj ba weesu xaaj te xamuñ ba xam yàlla nangu na ko déet te xamuñu danañ fekk weer weem déet buy jeex te la weesu weesu moo tax yàlla na nu yàlla dimbali ba bu weeru koor bi jeex fekk na fi te liñ ci jot a dese ko defaguna ko si néew mu nangu ko te làqal ñu ko fu yàq dut yegg te yërëmal ñu suñu way dawlu yi fan yii ñi faatu yàlla jële leen fi te jaarale ko ci ay loxo ay yoxo nee na gañ yàlla na yàlla yërëm ñépp ñi nga xam ne it ñoo leen gën a jege ci bokk ndax saa bu nit faatoo rek mbokkum ñépp faatu ndax nit ñëpp ay bokk lañ waaye ñi nga xam ne ñoo gën a jege ña faatu xamoon leen ñu xam leen ñoo ngi leen di masaw di leen jaale ci turu jullit yépp yal leen yàlla may xolum muñ te yërëm ñooñe yóbbu leen aljanna ñekk di ay jullit kon yàlla na yàlla defal dégg ak topp te musaluñ seytaane ki pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin